yéen waa mbooloo mi maa ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant damay séeréer nag wala fi sëtub lool lu ma sa juum rek na ngeen xam ni mu demee la waaw waa kër bu sur commando feen Diouf lañ kon dañoo ala fi jub Macky Sall euh, Moustapha Seck dama bëgg soo tëddee nelaw na sa xel dal parce que Cheikh Madou Bamba fii depuis premier tour moom lañ koy sama man liggéey naa ko ci koñ bi te dugg naa ci yeneen koñ ba lu xat leen ba liggéey ko waaw dañu doon nelaw mais dañoo yeewu leen ndax li tax dañ doon nelaw élection yële passé dañoo juum ay xaalis jaar fi weccet nax na na kenn ñun amu ci un franc dañ ñu koo dégg ñu ko te joxul ñu ñaar dërëm te gone doo ko def tey suba nga naf ko xanaa bu defee loolu dafee jóg ñun ñoo ngi ñaan keroog muy ñëw bañ ko jógee la nga wax deg nañ ko lool ñu xam ne kii waxi nit la wax ndax buñu ñu jàppalee Macky Sall jàppale wuñu Macky Sall suñu bopp la ñu jàppale ndax jëm ji di jarbaatu Sall jëm buñ ko jëlé mu ne ci nguur gi nekkal fi wa Sall gi ñun ñoo cee ci kooku man leer na ma kon nak nañ ko jappé ci tata sa bu fi ne yóbbu naa ko ba la jënd ko ba nga xam wote rek ma fi bi buqatul mu baaraka ñun ñoo fiy jël def sa kooku moom leer na kii moom la ñu tuddee Serigne Modou Moustapha Mbacké Maxtaar dama jóg maamam daa sant kooku ci biir Masamba faa xuddaag Modou faa xuddaag Balla faa xuddaag Moura faa xuddaag Modou Penda Bouya. Modou faa xuddaag jur sa néew kooku sa jéey man jox ko teel a moom saa xeer Fatma maam Tanda ak Mariama Xarima Penda Bouya amin teel a saa xeer Fatma Cheikh Moustapha Samba ngi nii Cheikh Moustapha kan nga am loolu bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh soxna Maguette Diouf toutes mes félicitations tàttali loolu waay li may njëkk wax ci doléance mooy mën a yi nga ma wax nii cent mille francs yii tàmbalee ko su ma déglu ma ko di wax